Alhamdulillah, sil xufraani wal karami restaurant pâtisserie fast food and salle de conférence bu Moutou 77 823 64 70 76 586 21 21 77 195 25 24 76 354 44 44 restaurant El dassi bi nek ci yoonu mbak bi islam mu njëkk ba la le palais du goût. Senevision.com la crédibilité notre credo. Senevision.com World la ni tëggoo. Senevision.com kumpa Tagonagi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa talata. di juróom ñaari fan ci weeru koor di juróom ñetteelu lugu ga sopp nañ ko ca julli ñaari rakka rakka bu ca nekk nga tari ca fatiha benn yoon suratul ixlaas xul xul wallahu ahad fukki yoon ak ñaar sëriñ bi nee ku def insha allah haraf bu ca nekk danañ ko ca bindal at